waaw ba tey sama gars yi ñu ngi si Equivox TV ñu dalal benn grand benn ndaanaan Leuz Diwane ji gars yi xam nañ ko bu baax a baax sound bu mu génnee it la sound bu mu génnee day def taba moom lañ taxawal laaj ko Leuz fi projet yi toll dip ba mu génnee diagnostic ba léegi déggaatoon Leuz tegaat beneen projet donte mi ngi génnee ay single mi ngi am ay millions de vues mais projet la gars di laaj Leuz waaw ñu ngi siyaar ñëpp di wax asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Galsen hip hop donc asalaamaaleykum le monde entier waaw Leuz Diwane ji quoi waaw je crois que question bi c'est simple et aussi réponse bi day simple ñu ngi ci depuis 2015 ba léegi ci loolu lañ nakk je crois que wala ñun suñu stratégie de job ak stratégie de job bu gars yi bokkul ñun ñu def produit rek bàyyi ko mu dem dañ koy topp donc jël le temps qu'il faut parce que temps la ñu def liggéey ko donc temps la ñuy defaat tamit pour pousse ko mu yegg fi mu war a yegg donc euh, mënoon nañ ko bàyyee mu dem comme ñëpp mais je crois que ne voilà loolu voilà day am lu des ci liggéey bi comme li may wax chaque jour dañu def dañuy def produit te produit c'est avant pendant et après après bi nag mooy boo defee produit ba nit ñi déglu ko ba pare foog nga ànd ak produit bi demaat ci nit ñi donc defal ay show voilà def contact direct ak loolu moo yeexal liggéey bi mën naa wax mais ci liggéey bi la amaan amaana sax yeexul yoonu carte gi la et que en même temps en parallèle ñu ngi liggéey deuxième album bi donc nekk ci à fond sax parce que 2015 ba 2018 19 produit diagnostic moo doon daw 2019 la ñu commencé tijji beneen fenêtre bu bees donc def nañ Mbour ak Lem def nañ wéeruwaay def nañ wéy wàllu je crois que continuité liggéey bi incha allah di ngeen jot beneen single peut-être wala beneen vidéo après ñu door a wax nag. jàpp date pour def communication carrément pour joxe date de sortie wu album bi quoi te album la ñuy job donc album li may wax chaque jour damay def produit mixtape def ci le temps qu'il fallait pour mu génn donc mixtape sëgam moo nécessité temps bu doy noonu rawatina album donc man du ma yàkkamti rawantewu ma ak kenn jëkkantewu ma ak kenn respect laa am sama bopp ba pare avant ma koy wut si kenn am ko ci li may def am ko ci ñi ma koy jox donc du ma lu ñorul yàkkamtiwu ma rawantewu ma ak kenn ñu ngi koy liggéey heure bu paree incha allah nit ñi dinañ ci jot donc loolu mooy suñu concept ko am na solo Leuz Leuz dafa génne temps yële benn single Mburok Lem mu am ay millions de vie mhm. ñu gis beneen gel encore def ko remix mhm. koo ba ko bokk mhm. di ko dawal ñu ne woon Leuz da doon aalu ci affaire boobu da nga koy dëggal wala. non ku xam Leuz xam ne du aalu ñun lépp si loxoy suñu borom lañ ko teg mënoon naa def single kenn du ko déglu. mënoon naa bokk ci artistes yi kenn dul baal yi xel donc lépp suñu borom la moom moo def single bi nit ñi bëgg ko ba am ay nit ñu ko reprendre et noonu la demee programme am la man duma ci len donc moom moo ko programmé ne noonu la waroon demee dinaa ko génne dina neex nit ñi dina am ñu ko reprendre donc du ñu aalu juste benn affaire la ñuy naqarlu mooy produit dafa metti œuvre d'art dafa metti da ngay toog créer dafay affaire am équipe booy liggéeyal bu dee man kese kenn du ma dégg mais dafa équipe bu ñu liggéeyal ñoo xamante dañuy bëgg tamit mbir yi di jaar yoon bu defee cover c'est bien bon mais naxaar ñun ñu pare suñu produit waru ko génn di jëkkante ak ñun loolu keese la ñu naxarlu mais lu ci des yëpp ay détails la parce que xale bi maa ngi déggante ak moom maa ngi déggante ak seen waa kër loolu amul solo quoi donc waaw encore une fois merewuñu ko au contraire dañ ko rafetlu parce que le fet que nga def œuvre nit jëlaat ko wayaat ko ça fait plaisir mais ñi ci gannaaw xale bi defal ko vidéo te tàgguwuñu jëkkante ak ñun loolu lañ doon mettitlu voilà. Leuz ba tey ci problème laay taxaw mu am ay millions de vies mm-hmm. nu lay def te sànq boobu noonu. Mm-hmm. amul benn trophée. Mm-hmm. Leuz si pop seen la wala nu demee noonu lan la lu xew. waaw déjà déjà ça fait plaisir ah ça que plaisir sax bu ñu amoon beneen expression boo gën loolu dañ koy utiliser parce que def benn œuvre nit ñi di ko reprendre loolu munoo xam nan lay def ci xolu doomu aadama. rawatina nag mu nekk ay ruqi ruqaat yi foo dem nit ñi di ko woyaat da ngay dem des fois sax da ngay def concert nga noppi nit ñi woyal la ko ba mu jeex loolu ça fait plaisir million de vues yi pour man loolu voilà loolu. am xaalis. non amaguñu ci xaalis peut-être mu ngi ñëw mais amaguñu ko ci li may wax rek dañuy liggéey ba ñuy liggéey investissement la investissement investissement ku wax investissement wax wax coono wax xaalis wax xalaat wax et cetera et donc loolu yëpp la ñuy dajale amaguñu ci liñ ci def. mënagul génn parce que dañ ci dépensé physiquement dañ ci dépensé suñu temps lañ ci def dañu sacrifier lu bëri def ko ci donc man on attend plus parce que kuy def dara di di di ci séntu di ci séntu perte je crois que mieux vaut nga bàyyi ko ñun xam nañu ne li ñuy def di ci dekk war na man a jur lu ëpp loolu donte nag ndamawuñu ko tiitaroowuñu ko mais ay doomu aadama kese ñoo koy def gars yi dañu am ay milliards de vues ñu dem ay cent millions de vues donc ay dix millions du dara par rapport ak li ñuy def je me dis que ne war na mën a dépasser foofu parce que sénégalais ñoo gaaw a suur gaaw a regg ku ci am benn million di ko tiitaroo ku ci am ñaari million yaakaar na toj na àdduna bi alors que américain yaa ngi am ay milliards de vues donc je crois que rêve bi du ay dix millions rêve bi c'est yegg cent millions am un milliard de vues comme ñëpp et incha allah loolu mooy défi bi quoi dañu bëgg def loo xamante ne ni doomu aadama yëpp dañu koy bëggee du rek du yem rek Sénégal donc loolu ci ñu nekk voilà mm, je crois que mburook lem noonu la naturellement la juddoo lu ñu fii la def ko nit ñi jëlaat ko sa fait plaisir franchement ça fait plaisir. mais Leuz ñi naan Leuz diwaan ji dafa ceeñ léegi day way rek. loolu la ñu doon xamuñu woon Leuz Diwane ji Leuz Diwane ji way la commencé. deux tons la Leuz Diwane ji deux tons la mës def dafa rap way diagnostic boo ko dégloo early in dama ko way te pourtant moo gën a siiw samay sound child right dama ko way te pourtant moo gën a siiw samay sound warul yëmb dama ko way reggae laa def donc ku wax ne Leuz day way rek rabatul daa xamul kan mooy Leuz lëz mooy double ton yi maanaam day rab di way lool bu dañee rek nekkatul lëz foog may rab di way parce que ci way laa commencé boole kook rab donc ñaar yëpp depuis le début ba léegi ñaar yëpp laay boole musuma ci bàyyi benn et ci album bi boo génnee dinañ comprendre que ne ñaar yëpp laay boole ba léegi peut-être nag single yi ay stratégie la pour toucher benn public boo xamante ne ko am loolu stratégie de travail la bokk ak ne dañu changé mais gars yi bu album bi génnee dinañ comprendre que ne ñu fa ñu nekkoon ba léegi waaw am na solo ñu lay bëgg grand. ñu ngi koy rafetlu. jaajëf Leuz Diwane ji la woon ndaanaan la forom mën naa ni mooy artiste su lébu yi ah lébu yi am nañ ay rappeur am nañ lépp mais Leuz Diwane ji dafa complet bu woyee nga nangu bu rabee nga kontaan moo tax gars yi di ko bëggee bu baax a baax sound bu mu génnee day def it loolu raar na ci artiste di ko def jamono bi lem am na plus de 10 millions de vues loolu dañ koy ndamoo. xëy na moom xeeb na ko mais loolu dañ koy ndamoo ndax hip hop Galsen raar na nga gis clip bu am loolu ci ay vie bu dee mës na am moom moo ko def dañ koy félicité si loolu respect ci moom bu wér a wér ñu ngi lay bégg bu baax jaajëf